dama dem seeti xalif général bi fi nekkoon ma dem seeti ko ne ko dama bëgg nga dénk ma dama wax ak ndaw ñi ci àdduna bi mu ne ma damay dénk ñaar rek li sëñ bi waxoon ma ne ko lan la waxoon mu sëñ moon mati lay bi gën a àdduna yàlla xare ko àjjana mu ne rek laa lay dénk li sëñ bi waxoon foo dem wax ko fa ndaw ñi liggéey ak jaamu yàlla loolu philosophie la loolu bu ñu ko defoon ci ndaw ndaw ñi bu ñuy judd ba léegi kon tey kenn nekk ci réseaux sociaux yi saagante doo am jotam man xale yi ma yar sama tool yi kenn amul jot saaga kenn du mën a def nii kenn dugg ci Nicaragua gi ku ci déggoon ba ñëw sama tool sax dootoo dem parce que damay def si ñoom loo xam ne liggéey ak jaamu yàlla la jox nii la ñuy def mais père fondateur yooyu ñun suñu réew dafa am lu ko téye dama ne la ñoom père fondateur la ñun suñu ñu ko war téye tey mag ñi bu dëkk bi méttee dëgg dëgg dëgg dëgg ku ñuy déglu suñu kilifa yi la ñuy déglu yow mi am na loo xam ne boo ko jàppee loo ko jàpp-jàpp kenn kilifa xam ne bu tëjoog yow bu génnee nga bàyyi ko président bi la même chose opposant yi la même chose képp ku fi jàpp ñooñu nag ñun ñoo suñu père bu ñu mel ni tubaab yi que ñoom seen père fondateur ay politiciens ñun mu nekk ay politiciens non Senghor li mu wax dafa yàq mi man dama ko bëgg a tabaxaat ci suuf dama doon wax foofu pareegoomal ne la bu ma defaree baykat bi ba mu am lim dundee ba mën a defar réew mi di leen dimbale dafa am leneen lu ma siy teg képp ku nekk ci armée bi looy dundee ti baykat Sénégal bi moo koy def kes ku nekk ci public bi nguur gi li muy dundee Sénégal baykat bi moo koy def joxaat na ko beneen marché bala exemple dafa war a jóge si ñun ku nekk ci armée bi lu muy sol ñun loolu rek marché boobu nga créé man dama bëgg créé ay champion sénégalais ay milliardaires sénégalais comme ñoom Serigne Boub ay milliers laa ci def booy bay booy ñaw lii dama ci leen def ay coopérative ñu fexe ko armée bi li ñuy ñaw ñoo koy def daal yi ma sol nii ak ceinture militaire yeeg policiers yeeg gémi et cetera ñu dem ngaay mexe former xale yi def ko ay usine ñu koy sol comme tubaab bi ñuy fiere li ñu sol doomu sénégalais moo ko def fekkee mënuñu defar bu baax ma jële ay ponkal ci àdduna bi ñu jàngal leen ko prison yi nekk ci réew mi fii ma tas leen yépp 37 moo fi nekk genn wàll yëpp laay tas xam nga bu may njëkkee ah. rëbës man boobu bu ñu koy tas sax damay demaale tas prison yi. bi bi nekk ci rëbës bi bii nii bu ñu koy toj man damay dem taxaw. pour ko. amul lu tax dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy toj rëbës. mais lu tax ña nekk ci biir na. waaw dama ma expliquer. Hmm. booy tas dara kay da ngay tabax dara ba pare. dama bëgg a créer ay prisons agricoles parce que le Sénégal a besoin de ses enfants a besoin de travailleurs de main d'œuvre ñun ni lekk doy dañ koy uti bitim réew ngay jël sa doom yi war a taw liggéey nga jóg leen ci kaso di leen teglante mais ni kuy temps yu jaam ñi loolu dañ ko war a rus ñun képp kuy sénégalais di ma seetaan loolu gàcce la pour ñun suñ doom yi ñu leen di traité man ni may traité sama jur gi ci sama tool moo gën lu ñuy traité suñ doom yi te mérité wuñ loolu yow doom bu ñu ko tëjoon feetee da am lu la métti yàlla bu la ko yàlla defal man dama bëgg ko fi parce que dama tukki gis àdduna bi ni ñuy traité prisonniers yi prisonniers yi fi amul sax lu ñu sàngoo suuf la ñuy tëdd ñuy taxaw loolu yow loolu xelu na damay def ay prison agricole comme ni ma def sama tool yi nii tas ko ci réew mi ñi ma jox leen côté mbay mi ñu ne ma jox leen côté sàmm gi ñu ne ma jox leen côté ceeb bi et ubbi leen ay compte bancaire liggéey ci biir tool yi ñuy liggéey di ko def seen compte yi di dimbalee seen waajur yi yaa ngi may comprendre foofu yow instant yi fi mu ne tabas di ñi nga xam ne nag balaa ma ñëw ci peine boobu sax yow xool instant yi sàmm gi nan nga mën a comprendre tabaski jot Sénégal di xaar Mali Mali amul dara yàlla na ma yàlla jégal suma xarit yi nekk foofu je j'aime bien le Mali mais comparé ak ñun li ñu am ci ressource am suuf am ndox am lépp yow bu tabaski jotee wala gàmm màggal dañuy xaar ministre mu génne oh ñi nga xaar xar yaa ngi jógee Mali. du amul ñoom problème na développer. waaw mais bien que état man éleveur la ah. mais élevage local damay damay xam nga si yow. li nga may expliqué yow mënoo ma ko doo ma ko jàngal parce que moom laay def man damay bàyyi di élevé dama la wax ne loolu man su ma amoon tey prisonniers yi ñuy jël leen ñuy ñu sàmmal ñoom ñu ciy am dara bu ko defee sénégalais mooy jaay xar àdduna bi laa la wax mooy jaay ñu ñu wër yëpp xar ak nag lépp lu ñu soxla loolu am nañ ko am nañ ndox mi. beneen bi ci def mooy prisonnier bi nekk ci biir prison bi dafa am lu ci delloo dafa ma métti. Hmm. tey bu ñu digitalisé suñu justice système bi. comme ni ñu def États-Unis États-Unis yow mën nga nekk jël ticket booy dawal ñu may la ticket New York nga war a fay 300 nga war a dem court fekk yaa ngi dëgg Ohio New York ñoo la ko jox da ngay toog si biir juge bi bay toog ci biiram yow nga nekk ki ki ko def nekk ci biir jeel bi ñu dawal ko télé ñu àtte ko du mat une journée mu dem yoonam su ma jëlee réew mi noonu laay def damay digitaliser suñu éducation bi parce que am na ñu nekk ci jeel bi fii suñu Sénégal. engorgement ñu ngi lu mat 2 ans 3 ans wala parce que ki leen war a oo dafa dem naa ni ataaye wala dafa dem ngénte wala dafa dem nanga dossier dafa bari ci dossier ñoo bari si ñoom ñu nekk ci justice bi ñu jox leen ay conditions yi ñu mën a liggéeyee jël xale yi nga xam ne jàng nañ ba pare jëluñu leen ñu jàppale ñu digitaliser suñu système bi ci éducation bi ci justice bi ci agriculture bi ci lépp nag loolu pour mu am il faut nga am vision ba ma la yooyu yëpp dafa interconnect